dama ne pour information bu xam ne ñu ngi alerté état ni ko la mu defal meññee ni leen 31 décembre 2023 bi maanaam légalement loolu la ñu ñoom xaatim ñoom seen biir ni 31 décembre 2023 droit de douane yi ma leen mayoon danaa ko jëlaat bu ko jëlaatee meññee mën nañu xëy ni ñoom dañuy yokk farine c'est normal boobaa ma ni état bi nag bu ko defee ñun boulanger yi kon boobaa dañuy gën a dee rek te boobaa nag kon comme mbaa bi ñuy mënee bon boobaa dana gën a yokk su bëggee gën a oyofal mbir mi bu mu jéem a sax nan day dindi loolu ça c'est important.